ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Chérif ñu ngi lay jiital ci nuyoo bi. jërëjëf xaalis fa tabaarakallaahu di la ndokkeel bu baax. ci weer wu tedd wi nga xamante ni mooy chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu weer wi nga xam ne bu ñu ko amee samaam moo tax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la ndokkeel it ci liggéeyu jumaa ja fa tabarakallahu ndaxte yaa nga ca sa jumaa ja nga xam ne ca la ñu denc sa wayjur ci liberté 6 macha allahu depuis nga tàmbali liggéey bi ak léegi taxawoo loo am rek def ca te tamit kenn gisu wax dëgg yàlla macha allahu ngay wër di laaj lu dul mbokkum jullit mu doxantu ba àgg fa rek gis ni ñu nga ca liggéey ba mm-hmm. mu jël alalam def ca mm-hmm. ni kii fa tabaarakallaahu président de la république def jàpp na ca macha allahu en tant que njiitu réew mi waaye en tant que jullit mm-hmm. premier ministre fa tabaarakallaa moom it jàpp na ca mhm. ak ñu bare baree bare bari macha allah ak suñu waa ji nga xam ne day bañ ko ko tudd waaw moom nee na bu ko kenn tudd ah, xanaa ñu bañ bañ koo tudd macha waaw xanaa duma ko tudd nag waaye mooy turandoo Cheikhuna Tidiane Chérif radiallahu taala anhu moom it ñu ñaanal ko ak mbooleem ñi mel ni moom ndaxte gis naa ni daal fa tabaarakallaahu commission baak ñëpp mhm. dañu ko jël bàyyi ko sa loxo ci lu wér waaye ñu baree bari ñu ngi ñëw ñii sotti fa suuf ñii sotti fa béton ñii sotti fa fer ñii ñëw macha allah ne ca liggéey ba di liggéey ba ca ouvrier ya fa nekk di liggéey liggéey boobu yàlla na yàlla àggale ndaxte fa tabaarakallahu mënoon nga jëm ci leneen mhm. waaye nga di néegu yàlla bi nga xamante ni suñu borom tey bu doon ñëw fii ci Liberté di mm-hmm. gane si mm-hmm. fii mooy résidence am bi nga xam ni fi lay gane mm-hmm. kon man moom laay liggéeyal lu ma am naa ko ca def mbokk yàlla cay jàppale lu ñu ca def yàlla nañ ko gën a man Chérif looy ndil mbokki jullit yi waaw alhamdulilahi rabbil alamin tafsir ñu ngi delluwaat di sant lépp loolu yëpp suñu ko mënee euh, ci ndimbalu Chérif Mahmoud la mi nga xamante ne mooy suñu xalifa papa nga xam ne li ma waxee tànkam la ñuy doxee ay loxoom la ñuy jëfee bëtam la ñuy xoolee làmmiñam la ñuy waxee ruuxam sax la ñuy noyyee kon Chérif Sidi Mahmoud Haydara ñu ngi ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi ànd ak wér ak tal ak imam Mawlud Sow di imam ratibu jumaa ji ak papa Ahmed Fall nga xam ne kilifteefu gox bi yëpp yàlla nga ko teg ci loxoom papa Ñambe si le président commission jumaa ji ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo ŋànk jumaa ji àndoon ko ak wayjur wi lislaam rek a mën yooyu àndoon ko ak wayjur wi wayjur wi génn àdduna tey def na 19 ans waaye lépp lu ñu joxoon sama wayjur jël nañ ko doubler ko tripler ko jox ko famille bi loolu l'islam bi moo ko mën moo tax ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla bàyyi leen fi tafsir wala qad atayna luqmaana alxikmata an ashkuru lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ganiyul hamid wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaciduhu ya bunay laa tushrik billah inna ashirka la zulmun azim wa wassayna al insana bi walidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi aamayn an ashkur li wa li walidayka ilayya almasir wa in jahadaka ala an tushrik bi ma laysa laka bi ilm wala tuti'huma wa saahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun tafsir de continuel yaa bunayya innahaa in taku misqaalu xabbatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samaawaati aw fi l ardi yaati biha allahu inna allaha latifun xabir yaa bunayya aqimi salaata waamur bilmaaruufi wanha ani lmunkar wasbir ala maa asaabaka inna dalika min azmi lumuur wala tusaacir xaddaka linnaasi wala tamshi fi lardi maraxa inna allaha laa yuxibu kulla muxtaalin faxuur waqsid fi mashyika waxdud min sawtika inna ankara l aswaati la sawtu lxamir bismillah chérif wala qad atayna kon nag tafsir wala qad atayna luqmaan alxikma an nashkuru lillah kon foofu li njëkk li ñu war a njëkk jàng mhm. muy sant yàlla mhm. tafsir sant mooy waral ndollent mhm. parce que la connaissance c'est bien mais laa reconnaissance est encore mieux gis nga julli lu muy foor foor foor foor yàlla lenn rek la ci soxla mooy ba nga liqaamee da nga waaj bala ngay liqaam sangu nga jàpp nga ñëw nga yéene nga liqaam nga ba nga liqaamee ngay kabar kabaru armal ba foofu ngay dugalee sa yéene ba nga kabaree di jàng fatiha waaye yàlla la ko ca ñor dëgg-dëgg mooy ba nga jàkkaarloog moom mhm. naan ko iyaaka mhm. yow kott dong yow yàlla naabudu yow rek laay jaamu wa iyaaka yow kott dong yow sama borom nastainu yow rek lay ñaan mhm. loolu c'est la communication gis nga reconnaissance boobu dafa am solo moo tax ñu ne cant ñeent la sant gi yàlla sant boppam mhm. sant gi yàlla sant jaamam mhm. jaam bu jóg def lu baax te yàlla tax bu ko déggee bu ko déggul bu ko yégee bu ko yégul yàlla nga koy sant mhm. ak sant gi jaam bi sant boroomam ndax nit ku ne yow ba nga toogee wéet xam nga ni amel nga sa borom cant waaye sant gi jaam bi moroomu sant jaam jaamam ndax sa sa mbokk jaam muy sa nawle sa nit bi nga xamante ni moo jóg defal la lu baax te yàlla tax mhm. wala waxal la lu baax te yàlla tax wala taxawu la boobaa yàlla nee na na nga ko sant na nga ko gërëm mhm. kon nag loolu itam mu nekk lu am solo yow noo déggee aaya macha allahu shérif man daal fa tabarakallahu xam naa man dama doon dellu tuuti gannaaw mm. ci wala qad aataynaa luqmaana al xikmata mhm. xam nga démb maa ngi la koy wax bi ñu bi ñu dajee fa tabaarakallaa bi ñuy tàggoo may dellu mhm. maa ngi la naan gis nga luqmaan al hakim mhm. macha allah li ko suñu boroom defal mhm. dañu ko laaj foo jaar ba am lii mu ni jànguma ko fenn li ko may mooy bàyyee boppam yàlla dégg nga maam Seydi El Hadj radiallahu taala anhu mu nga naan wa xayir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna wa imma ghabbaati l umuuri taxiibu alaa farda maa yaqdi l ilaahu bi mulkihi fa fiihi ridaa man bil mutiici yusiibu wa maa yafcalu lhaadi ljaliilu bi xalqihi fa daaka jamilun yartadiihi muniibu Luqmaan dafa tëdd di nelaw bi mu tëddee di nelaw mel ni malaaka daf ko feeñu loolu mooy ilham ni ko waaw Luqmaan dañu laa bëgg a tànnloo ñaar mooy dañ la bëgg a def Euh, nga doon juge bi nga xamante ni yaay àtte réew mi yépp yaay doon xalifa bi Luqmaan ni ah man daal dama koy delloo ci loxo sama boroom bi mu yeewoo ci nelaw yi daal ni dama koy delloo ci loxo yàlla bu fekkente ni yàlla moo may tànnloo man ci sama bopp baax na naa nekke nii rek effacé wu kenn bañ maa xam bu fekkente ni nag moom moo décidé pour def ma ko d'accord naa ndax xam naa ne kon di dama jàppale ci lu ba mu waxee lool rek ci la borom bi subhaanahu wa taala ni malaaka mi takkal ko ràng ràng ko alxikma moo tax luqmaan fekk na jamono yonent yàlla daawuda yonent yàlla daawuda moom moo ñaan yàlla suñu borom def ko mu doon xalifatan fil ardi moo tax ba mu ñaanee yàlla yàlla def ko xalifatan fil ardi problème yi mu am yépp après mu am ko ca waaye yàlla baal ko Luqmaan nag comme dafa tànn loo yàlla ni ko yàlla tànnal ma boo ma tànnal baax na comme na Seydi Aji Malick nii tànn lool yàlla waaye bul tànnal sa bopp ndaxte léeg-léeg nga tànn mbir léeg-léeg ngay daw di yuutu ju di wut ab oto wala ngay wut ab métier ndekete yoo oto boobu ci la sa bakken tegu ndekete boo ko jëndee rek te ngay accidenté nga dee mu ne kon neel yàlla na la tànnal li gën ci yow mu ni te lépp lu yàlla def rek dogal ko xamal ni loolu ngërëmal yàlla rek nga ciy jëlee lépp lu yàlla dogal kontaan ci ndax xamal ni loolu ngërëmal yàlla rek nga ciy jëlee kon luqmaan am na xikma fu ko jëlee mooy dafa bàyyee boppam yàlla suñu borom tànnal ko xikma xikma moo gën a noppale xalifa beneen bi mooy luqmaan al hakim laaj nañu ko it ko luqmaan noo def ba am lii mu ni ñett yi daala ma ko may chérif sidqul hadis luqmaan nee na benn mooy sidqul hadis chérif bismillah waaw bismillah tafsir dama bëggoon rek foofu ñu wax xikma mooy sagesse mhm. boobu moom mooy xikma bismillah macha allah kon euh, nee na benn ci li ma may sagesse boobu nga xamante ni moom la may suñu borom may ba téere yu jiitu alquran ak yépp ñu may waxtaane samay waxtaan man luqmaan xam nga luqmaan am na 4000 mu baat yoo xam ni nit ñi mu ngi ci waxi nit ñi nit ñi di ko wax te waxi luqmaan la luqmaan a ko jëkk a wax 4000 baat yoo xam ne nit ñaa ngi koy te luqmaan a ko wax mhm. luqmaan nee na bokk na ci li ma may li ma am man xam naa ni mooy sidqul xadis mhm. du ma wax mukk lu dul dëgg mhm. man luqumaan mosuma wax lu dul dëgg lu ma wax dëgg la bu ñaareel bi mooy adaa il amaana confiance bu nit masa am ci man rek delloo naa la ko ah loolu nag defe naa ni shérif njiit yi war nañ ko dégg tumuranke na ci jamono ah, tumuranke na loolu nañ ko dégg surtout nag ñi ñu dénk keesi réew mi mhm. keesi daayira yi keesi jàkka yi keesi association yi keesi ASC yi keesi banque yi mhm. hmm, adaa il amaana nga xam ni lii moo moo ko réew mee ko moom mhm. damay faral di wax ni képp ku jiite réew ku mu mënti doon ku ne wala nga jiite gox bu mu mënti doon bu ne war nga fexe ba xàmmee keesu parti bi ak keesu réew mi mhm. keesu réew mi réew mee ko moom keesu parti bi waa parti bee ko moom bokkul ak nag sa kees Luqmaan nee na bokk na ci li ma may loolu mooy adaa il amaana confiance bu nit sa am ci man ba jox ma ko rek delloo naa la ko mhm. bu ñetteel bi mooy wa tarki maa laa yaa nii nii lu ma amalul njëriñ falaa ko ma sa bàyyi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga ci xadis mu ni min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi lii rafetal doomu aadama njullitam li koy rafetal bokk na ci tarku ma la yaanihi lépp lu la njëriñ nga bàyyi ko faat defe naa ni daan naa ko wax waa ji dafay romb teen bi benn waaye di ko wër di wër teen bi naan 27 27 27 27 waa ji di romb élier mu dem mu ñëw ba ci teen bi waaw ki naan vingt 27 moom lan la ndekete waaja xel mam neexul sëñ bi na def kooku ne ko maa ngi fi mu ne ko waaw yow li nga naan 27 lan la mu ne ko taxawal rek dóor ko bi mu ko dóoree mu daanu mu yenu ko sànni ci biir teen bi ne ko 28 continué naan 28 loolu nag la ko yóbbee mu doon 28e <laughs> personne ndax mooy e ci biir teen même déet kooku insha allah à suivre la ko yóbbee mooy dugg ci lu yoonam nekkul chérif bismillah waaw tafsir kon da nga jàngat ni lii suñu borom wax rek ittaqullah wa yuallimukumullah uhuh. ragalal yàlla yàlla jàngal la dafa am lu ñu tuddee njàng ak xam-xam nit ki mën nga am njàng te doo am xam-xam mën nga am xam-xam te doo am njàng njàng ak xam-xam ñaari wute la Luqmaan nag ku amoon xam-xam la waaye nag nga gis ni loolu yëpp ci xeetu ragal yàlla la ci li nga wax ñu xàmmee keesu réew mi ak sa keesu bopp sa maam Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu am na benn nettali bu ñu nettali ci moom ni dafa am benn waay bu ne woon da koy ziar si. Mhm. fekk wala daf koy dañ ko dañ ko yónni woon. Mhm. bi mu demee ale bi mu paas alaaj maa da ko jox paasu saxaar mu paas ale bi retour bi mu tas ak mbokk taalibeem waa ji ne ko toogal du la contrôler mhm. doo fay ticket ba mu ñëwee ba ci Seydi El Hadji Malick del wax ko yóbbante bi ne ko nag gis nga nag paasu retour bi mu ngi nii. mu jox ko ko alaaj maa nekk lu ah lii pour lan. mu ne ko dama tas ak sama mbokk taalibe diw. moom dekete ci train bi lay liggéey moom moo ma bàyyi pour ma ñëw. mu ne ko ndax gis nga ko mu jënd ticket bi mu ne ko déedéet mu yëkkati xaalis bi ne ko léegi demal nga jëndal ma ticket nga indil ma ko mu jëndal ko ticket indil ko ko mu xotti ko mu ne ko ticket bi sama dërëm a ngi ci bu Abdoul Aziz a ngi ci bu diw a ngi ci bi ki nekk Jolof ki nekk feneen ak feneen mu ngi ci lii xaalisu état bi la mhm. lii xajoowu maag moom ci bàmmeel mhm. mu jël ko xotte ko kon mu fay ko nga gis ni kon da ngay gis ni loolu yëpp ay xeeti ragal yàlla la kon tafsir jotaay bi am na solo lool yal na yàlla guddal sa fan bis bu ne yaa ngi jóge ba Thiès ñëw ñuy toog di def liggéey bu am solo bi ak li ngay xat yëpp parce que wax ni da nga xat loolu àddina yëpp xam nañ ko kon nag fa tabarakallahu yal na yàlla yàgg dëgëral taxawaay yi ba li nga ko di yaakaar may fay suñu borom subhanahu wa ndax man li ma gën a neex li ma gën a neex ci yow maa ngi jàpp réew mi yëpp seede billahi wallahi tallahi village yi gën a reculé ci Sénégal dañu fay ànd di fa dem conférence ba ngay conférence digg Paris jom jëng cey def ak fulla ak fayda bi moom ngay def ca village bu gën a reculé ci Sénégal mooy kon yaa ngi jëf te yàlla tax boole ci at bu ne ay xale yu bari di mbokkale alquran ci sa loxo loolu nekk na lu am solo xale Ousmane yal na yàlla yàggal la yal yàlla yàggal la ndax yàggal la itam mooy ndimbaluk lislaam te yéen dañ leen ñaanal ba pore allahuma ansur man nasara diin boobu yéen a ko moom yal yàlla guddal fan yi tafsir kon bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bi sahbihi wa taabiciina lahum fahum yal nañ ko yàlla boole ah tafsir kontaan naa de. barakallah oh béggee de alhamdulilah jërëjëf yal na yàlla kontaan. jaay seydil wujudi jërëjëf ñëpp a ngi lay nuyu. Chérif Mahmoud a ngi lay nuyu de mu ngi lay ziyaara bu baax jërëjëf.